du lu il faut que ñu waxtaane ko il faut que ñu waxtaane ko mënul ñàkk que ñépp bok ci élection bi mënul ñàkk ñépp bok lu war la que parrainage bi nga xam problème le fi day indi distension il faut que nous waxtaane ko mënul ñàkk li mënul ñàkk aussi moy les modifications des articles 57 29 30 et autres mënuñu ko bañ waxtaane parce que problème là, li qui ñàkk mooy ñi nekk ci presque 500 personnes ay politique à ay journalistes nous parce que nous avons nga Si mi su fekkee dañ ko bëgg il faut que nous bañ ragal di waxante dëgg suñ choses, si nous rek avancer fii li am solo moy en tout cas ñun suñu téway dañu ñëw pour liggéey pour waxtaan pour juboo pour réew mi jëm kanam parce qu'il faut que nous rassurions ce pays il faut que nous réconfortions les populations il faut que chacun comprenne que réew mi kenn moomu ko. alaykum ah, salaamaaleykum mbokk yi dañu ñu leen di won ben xëccoo genn falé gu yéme ko xamné ak lu waaye mën xëccoo rek li yéme la ku tuddu yàpp xam ne mbir la moo xam ne dañuy ci wàllum. gàllaaj moo xam ci wàllum xëccoo lu yéeme la ci moom muy yàpp waaye tamit yàpp ak façon ak ni ñu ko amee bokkut bu dee bii nii xarum tudd lay doon ndawalu xaru tudd lay doon bu doon beneen xar nga jël du ko man moo moo bu doon weneen yàpp jël ci liggéey lii nga liggéey du ko man mais ci xarum tudd euh, boo ko liggéeyee pare mala yi am na mala boo xam ne bu nekk mala loo xamante ni yéenante wuñ seen biir mala mën a xëccoo boo xam ne boo jëloon dag yàpp bi sànni leen ko ñoom dañoo baadal ku ci njëkk jot dangay da nga jël daw dem sa yoon la boo ko jël nag daw moom ngay topp ba jàpp ko ba moo ci jàpp wi nii nga jël ko liggéey ci lañ ci liggéey koo ko sang ci kàttanu yàlla ak lu ñu mën ci xëccoo ci yàlla mi dara tëw dina ko ci may ne mu président moo ci gën a ndaw ci réew mi xëccoo kum man di doon koo xam nit ñi gëm nañ ko gëmuñu ko boo xëppoon mën naa jël boo xëppoon mën naa jël président loolu ci gën a ndaw nag ma yéen moo xam yéen ay kuy exeme kuy def leen yooyu waxuma ko yooyu moom moo gën yomb ci kuy xëccoo wala kuy xëccoo place wala kuy xëccoo barab bu man di doon lii nii bu ñu ko ko liggéeyee def ko incha allah jàll mi dootul mën a jafal. gis nga lii la ñuy waxati dafa tar ñoo xam ne dañuy toll ci buntu ëtt ñu yàq seen carrière yàq ko ci lu ndaw waaw kay maanaam fekk maanaam ñu tane ca famille bañ nekk ñu def leen ni def defa def defa bañ gën a yées ci senegal lii mooy di tàqale ak ñoom càngat la gu yéeme goo xamante ni sax la képp koo ci kii maam mooy loolu lu mu fekk seeram da koy dégager loolu leen ci kii baax a baax ngeen di gis nii bii. lépp mooy cangat bi mooy cangat loxo sa yaram lépp lu mu fekk ci yow moo xam lu def def ba yàgg moo xam ba nga juddoo ba léegi da nga gis koo xam ne bi mu tàmbali liggéey gër yoon bu baax lañ koy liggéey ay mbiram yëpp arrêté wala ko tàmbali kër wala ko tàmbali benn mbir ba tàmbali cee réussir ñu def ko loo xam ne dootu def def dara bu jëlee kii moom lañ naan bombe atomique bi bii nii boo ko laaj lépp lu fekk sa yaram da koy da nii yaaru yaa ngi nii jaaro yi moom li wér sa wóor mooy insuré maam mu doy na waar yéen ñi nga xamante ni daal sëñ bi kenn jubbu leen amoo leen bayra amoo leen dara soof ñëpp mii ni jaaro bàyyi nii bii mooy dàqaleeg moom incha allah ko commande mi yi amoon nag daa jeex képp ku ci bëgg rek incha allah rabbi bu ñu doog kiyee denta ci ko defal commande yoo xamante nii mi ngi nii waaw la cay dem dem na ci waaw kay jërëjëf